عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق bu amee alal denc ko at wala mu bàyyi dana ci génne azaka. si tu as des économies pendant un an tu sors la zakat tu acceptes. ñu ne nangu ko. loolu mooy l'islam c'est ça l'islam. léegi jullit ñi ñooy mbokkam. nous sommes tes parents à partir d'aujourd'hui. moom itam jullit la. tu es parent à nous tous képp ku mën a jëriñ ci na la jëriñ. si tu peux aider quelqu'un aide-le sans hésiter. parmi tes tes parents musulmans. bien sûr. si tu ne peux pas quelqu'un ne le nuis pas. moom mu ngi lay nuyu di jaale mbokk mi. muy suma nijaay. muy nijaayam. suma xarit. di xaritam. li ma ko xamal kenn li ko xamal mu ne kenn xamalu ko ko. parce que li ma ko magee bëri na. mu ne li ko magee bëri na. yàlla boole ñu. waaye yàlla boole leen. yaayam boole ñu. yaayam boole leen. yaay mu am yaay ju baax. mu am yaay ju baax. Anta Fall. Anta mu ne magam Anta. dafa toog diir. waaw mam Anta. maamam Anta. dafa toog diir. dafa toog diit. yàlla mayu ko doom. yàlla mayu ko doom. mu ñëw si bàyyi. mu ñëw ci bàyyi radilaanu. bàyyi ñaanal ko. bàyyi ñaanal ko. yàggu dara. yàggul dara. doom taxaw. doom taxaw. bu mu juddoo. ba mu juddoo. tur wi mu koy jox nii. tur wi ñu ko jox nii. moo ko ko jox. bàyyee ko ko jox. man de li ma xam ci moom. mu ne moom li mu xam ci moom. taalibe bàyyi xam la. taalibe bàyyi àqam la. du may waxtaan ak moom du ma juumee sa ba ne eh, diw si doomi bàyyi wala sët. mu ne buy waxtaan ak moom bëgg génn tudd doomi baay wala sët a baay te waxuma sëriñ te waxu sëriñ mu ne ma yaa ngi juum mu ne ko juum nga de mu ne njabootu baay kenn du leen sàllalu mu ne njabootu baay kenn du leen sàllalu waxtu loolu mu kon loolu taalibe gu jeex la taalibe gu jeex la ku bëgg mbokk la ku bëgg mbokk la international la ci mbokk international la ci mbokk a Jawara bi mu gaañu ñoo waroon a ànd maag moom mu ne Daawuda Jawara bi mu gaañu ñoo waroon a ànd ñoom ñaar mu gaañu mu gaañu ne ko man mënumaa dem ne ko man mënumaa dem dama dem seeti Daouda Diawara altine. dafa dem altine dimanche seeti a Diawara. altine mu dem. altine mu dem. bi muy dem jaale ji ñëpp la demaloon. mu ne ba muy dem jaale ji ñëpp la demaloon. doo dégg ma ne maa ngi koy leen koy jaale. mu ne bu ngeen gisee mu ne mu ngi leen koy jaale. doomi Moussa Diawara. doomi Moussa Diawara. sama maam. maamam. ak suma maam Alioune Cissé. ak maamam Baye Alioune Cissé. ñoom laa koy jaale. ñoom la koy jaale. parce que njabooti Moussa Diawara. ndax njaboota ak Moussa Diawara. mooy njaboot Serigne Aliou Cissé. mooy njaboot ak Baye Serigne Aliou Cissé. mooy njabooti Baye. ak Baye. kon ñu ngi leen koy jaale. kon ñu ngi leen koy jaale. di seede ne. di seede na. njabooti Moussa maa ci mag. njabooti Moussa moo ci mag. am naa fi ñaari nijaay. mu ne am na fi ñaari nijaay. jarbaatu Ibrahima Thiam Gaynde. jarbaatu Ibrahima Thiam Gaynde. mi. Habib Diawara muy Habib Diawara ak Babacar Diawara ak Babacar Diawara ñëpp a ngi fi ñëpp fi ñoom seen kaddu ñoom seen kaddu ak lépp ak lépp mën lañ ko jox moom lañ ko jox su may nijaay lañ ay nijaayam lañ su may jarbaa lañ it jarbaatam lañ it parce que sama maam Ibrahima Thiam ndax maamam Ibrahima Thiam sama ma magam suma bàjjen moo ko jur. bàjjen moo kon ñoom ñooy suma kilifa si. kon ñoom ñooy kilifaam. waaye ñoom ñu ne teg lépp ci loxoom. kon ñu ngi di dellu di leen jaare. mbokkam yëpp a fi. a ngi fi nag. waa Gàmbi ñëw nañ. waa Gàmbi ñëw damay gërëm nag jabaram bi nekk Dakar. parce que moo ñu jox oto yëpp. ndax moo leen jox oto yëpp. kilifa la ministère de l'intérieur. kilifa la ministère de l'intérieur. ñu ñëw fii fekkee ji état kon loolu naa leen leen ko yëgal jabar ju baax la ko ki fi nekkit kenn gënu ko ñun ñëpp gërëm nañ leen ñëpp gërëm nañ mu ne li ñuy njëkk a wax mooy Mohamed Bachir ku ciy wax na nga gàttal sa wax mooy Ahmed Bachir ku ciy wax na nga sa wax man de ñetti tomb rek la mu ne moom ñetti tomb rek la. Mohamed Bachir kan la woon. Mohamed Bachir kan la jullit la woon xaqiqatan. jullit la woon xaqan. lépp lu ñuy xool ci jullit mu ngi woon ci moom. bu dee xam lépp xool ci jullit mu ngi woon ci moom. ñaareel bi. ñaareel bi. taalibe Baay Ñas la woon bu bëgg Baay. taalibe Baay la bu bëgg Baay. radiyallaahu mandarga bi mooy yàlla may na ko mu niroog lenn ci njabootu Baay. mu ne mandarga bi yàlla may na ko mu niroog lenn ci njaboot ak Baay. ñetteel bi mooy. ñeteel bi moo di. dëgg-dëgg képp koo xam ne taalibe bàyyi nga te bëgg a bàyyi. mu ne képp kuy taalibe bàyyi te du bëgg a bàyyi dëgg-dëgg. li ngay ñaan yàlla. li ngay ñaan yàlla. bés bu la yàlla jël. bés bu la yàlla di jël man di suma loxo ca kaw. mu ne moom loxoom ca kaw. ñu tëral ma ci kanam bàyyi. ñu tëral ko fii ci kanam bàyyi. njabooti bàyyi tiim ma. njabooti bàyyi tiim ko. jullee ma ñaanal ma. jullee ko ñaanal ko. jébbal ma yàlla. jébbal ko yàlla. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. mbokam topp nañ ko dal léegi bi ci des moom mooy euh, suma rakk bu mu bokkal ndey bàyyi moom jabaram moo kii nga xam ni moom mooy euh, Bachir moom tamit foofu la am jabar ñaari xale yu jigéen yooyu ñoo bokk ndey ak bàyyi euh, kële mënul ñëw ma nga kanadaa ni ma naa ñëw teewal ko mhm. kon bu ma ñëwee maa ngi sàkku ci mbooloo mi ñu may ma rek kaddu yu néew néew néew ki nga xam ni moom la ñuy euh, suul ni man euh, xamoon naa ko xam naa ko aussi ba léegi daje nañu ca kër ga ba tàyyi li nga xam ni moom laa seetlu woon moom moo doon taalibe la jullit xaqan koo xam ni la mu nekkoon ñor na ko mu ñëw wanewul boppam foofa ki nga xam ni moom moo di soxnaam aussi lépp loo xam ni cofeel la ak mbëggeel ak gëm ko loolu la ko ameloon mu delloo ko ko ba mu doy sëkk kër ga ay jigéen a fa ëpp waaye daanaka mu gi moom mooy seen kilifa ndaxte baayu ndaw si fi mu toll nii romb na quatre-vingt-dix ans mais moom la jëloon kër gi teg ko ci loxoom mu koy doxal na mu ko war a doxalee kon ñu ngi koy jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñëpp di ko jaale waa kër Baye di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo ji taalibe yi léegi kon loolu rek laa amoon ci kàddu ngeen jéggal ma bu baax a baax a baax ndaxte temps bi dafa cher di ñaan yàlla mu yool ñu ci musiba yii te xuutalal ñu lu gën li ñàkk ñaar ñiy tëdd li nga xam ne moom lañ seede ci ñoom. loolu rek mooy dëgg. ñu jëkkee ci Mouhamad Bachir Diawara. ñu jëkkee ci Mouhamad muy taalibe Baay bu baax a baax. muy taalibe Baay radiyallaahu anhu bu baax baax. bu xasee nekk taalibe Baay bu bu xasee bu baax. tijaan bu baax la bu baax la. kon tijaan bu baax la jullit bu baax la. man xam naa ko ci ci biir Sénégal xam ko itam ci mu ne moom de xam na ko fii ci biir Sénégal xam na ko it ca biti. daan nañ tase Maroc mag daan na dajeeg moom ca Maroc ñoom ñaar. waaye mbaax gi mu nekkee fii. waaye kat mbaax gi mu nekkee fii. soo taseeg moom ci biti dara du ci soppeeku. boo dajeeg moom it biti dara du ci soppeeku. moo tax mboolem liñ ko seedeel. moo tax mbooleem liñ ko seedeel. dafay des kay waaye dara manqué ci. dafay des kay waaye dara manqué wu ci. dafa dese luñ ko war a seedeel. dafay ko war a seedeel. waaye li ñu wax yépp ci moom dëgg la. waaye li wax ci moom lépp dëgg la. dégg ngeen jarbaatam. dégg ngeen jarbaatam léegi li wax. seede yim seede ci moom. seede yim seede ci moom. dégg ngeen Alaaji mi nga xam ne dëkk naa moom ñeent fukki at ñu seede ci moom. dégg ngeen Alaaji Paate nga xam ne dëkk naa moom ñeent fukki lim seede ci moom. lépp nekk ay seede yoo xam ne yu wér la. lu wér la. tëraayam bii du na ma ko may. duhut kat tëraayam bii moo ko ko may. moo ko ko may. mën ngaa wax ne Bachirou waxtu woo ko bëggee gis Médina rek gis ko. mën ngaa wax ne Bachirou waxtu woo ko bëggee gis Médina rek gis ko. li Aïchatu waxoon ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam bëggee gis muy ne boo bëggee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy nelaw da ko gis muy nelaw boo gisee muy naafila it. ci guddi ci guddi da nga gis muy naafila ci guddi. waaye Bachirou itam. waaye Basiiru mi itam. waxtu bu ko sa xel dajee rek mën ngaa tase moom. Hmm, ko sa xel dajee rek mën ngaa dajeeg moom. ci moom. loolu nag dara defu ko lu mooy mbëggeel gi nekkoon ci moom. Hmm. ñaari ajuma yi passé rek mu ne moom imaam mu ne ñaari ajuma yi passé rek la nuyuwante wut moom ci juma fii ci yi passé. kon ñu xam ne borom diine la. ku téye diineem bu baax a baax wéral ko. ku téye diineem bu baax a baax te wéral ko. lim jëlee ci way juróom yi. lim jëlee ci way juróom yi. dara sànku ci. dara sànku ci. tariqa bi itam jàpp na ko ni ko war a jàppee. tariqa bi it jàpp na ko nim ko war a jàppee. ameel na bàyyi mbëggeel def ko muy sëriñam. Hmm. ameel na bàyyi radiyallaahu anhu mbëggeel def ko muy sëriñam. ba pare bëgg njabootam yëpp. ba pare nag bëgg njabootam lépp nag. amut ku muy tànn ak ku ku gis rek. ku gis rek. teg na la fi mu la war a teg. teg na la fi mu la war a teg. jaami yàlla bu baax la. jaami yàlla bu baax la. waaye mu ngay dem fa nga xam ne fa la mbaaxamee. waaye mu nga jëm nag fa nga ne fa la mbaaxamee njëriñ. yal ko yàlla ci mbaaxam. yal na ko yàlla wan ci mbaaxam. ak ngëneel. ak ngëneel. lu ëpp liñ ko jortal. lu ëpp liñ ko jortal amin yàlla bu mu fa fekk benn fitna. yàlla bu mu fa fekk benn fitna. yàlla bu mu ko bàyyi ci gannaaw. yàlla bu mu ko bàyyi ci gannaaw. na ko yàlla yaral njabootam gannaawam. yal na ko yàlla yaral njabootam gannaawam. te lépp loo xam ne xëy na woon na ko ci ñoom. te lépp loo xam ne xëy na ko xëy na woon na ko ci ñoom. yàllaa ko ko mën gën a mën te yàlla ngi fi des. yàllaa ko ko gën a mën te yàlla ngi fi des. lépp luñ ko xëy na moom mii di dem itam. lépp luñ ko xëy na moom mii di dem itam. yàllaa ñu ko gën a mën te mu ngi ànd ak moom. yàllaa ñu ko gën a mën te mu ngi ànd ak moom. ñaari boor yëpp. ñaari boor yëpp nag. mën na ci wutu. mën na cee wutu yal na ci wutu yaara bi. kenn ki. kenn ki. di jarbaate alaaji tamsir. di doom di doom ci alaaji tamsir. dégg ngeen lim seede ci moom. dégg ngeen lim seede ci moom. seedeel na ko njub seedeel na ko njub seedeel na ko ak njullit. seedeel na ko itam na ay way juróom gërëm nañ ko. waaw loolu yëpp mandargaay texe la. loolu yëpp nag mandargaam texe la. kon ñoom ñaar ñii di dem mën nañoo ànd. kon ñoom ñaar ñii di dem mën nañoo ànd. ñu ngi yaakaar ne. ñu ngi yaakaar ne. buñ demee ñoom ñaar ñëpp. buñ demee ñoom ñaar ñëpp. dëkkandoor yi bàyyi la nekk. dëkkandoor yi bàyyi radiyallaahu anhu la ñuy nekk. ndax loolu la ñu bi dig. ndax loolu la ñu yónnent bi sallallaahu alayhi wa sallam dig. yónnent bi moo dëkk. yónnent bi sallallaahu moo wax ne nit moo këm bëgg ñooy bokk dëkk. <coughs> ñoom ñii nag. bàyyi lañ bëggoon. bàyyi radiyallaahu anhu lañ bëggoon. doyloo ko def ko sëriñ. doyloo ko def ko sëriñ. kon suñ demee fële itam. kon suñ demee fële itam. moom lañ fay fekk mu nekk moom lañ fay fekk mu nekk. seen lépp seen lépp. yal na leen ko yàlla defal yaa rab. yàlla buñ ko bàyyi yàlla buñ fekk fitna yàlla buñ ko ba ci gannaaw. yal na leen fële gënal fi ñu jógee. yal na leen fële ñu jëm gënal fii ñu jógee. monsieur ñu ngi yëpp. Basiiru nag imaam mu ne ñu ngi koy jaale waa dakaar yëpp. ñu bëri ñu jógee intérieur ñëw. am na ñu bëri ñu jógee intérieur ñëw. am na ñu feneen. am na ñeneen ñu jógee feneen. am na ñu jógee fii ci biir dëkk bi ak biir réew mi. am na ñu jógee fii ci biir dëkk bi ak biir réew mi. ndax mbaaxam moo ko may loolu. ndax mbaaxam rek ko may loolu. ñoom ñu leen koy jaale. ñoon ñëpp imaam mu ne ñu ngi leen koy jaale. ñaan yàlla mu màggal seen yool. di ñaan yàlla mu màggal seen ab yool. te ñëpp dellu yool yu màgg a màgg a màgg. ba ñëpp dellu ànd ak yool yu màgg a màgg. ndax moom. ndax moom. fekkee ku mel ni moom. fekkee mel ni moom. julleem ak julleem ak robam. ci xéewal yi yàlla may julli ñi ci la bokk. ci xéewal yi yàlla di may julli di ci la bokk. su fekkee ne kuñ bala te yaakaar nañ ne kuñ bala moom. su fekkee ne kuñ bala te yaakaar nañ ne kuñ bala moom. yàlla dana daal di ba ilimaan bi ñu ci gannaawam ñëpp. yàlla dana ba ilimaan ji ba mbooleem ñi ci des ñëpp. ci nattale. ci nattale. fekkee bawuñ ko te ba ilimaan ji. fekkee bawuñ ko te ba ilimaan ji. danañ ko daal di ba ba ñu des ci mbooloo ñëpp. danañ ko ba ba ci mbooloo mi lépp. ci nattale ba tey. ci nattale ba tey. bu fekkee ilimaan ji bawuñ ko. bu fekkee ilimaan ji bawuñ ko. te mbooloo mi am kuñ ba te mbooloo mi am kuñ ba danañ daldi bañ des ci mbooloo mi ba élimaan bi ba ko moom ci boppam dañ balli des ci mbooloo mi ba élimaan bi ba moom ko ci boppam loolu la ko yàlla di njëkk a mënee gan tey loolu nag la ko yàlla di njëkk a mënee gan tey te xam ngeen ne mbooloo mu mel nii te xam ngeen ne kat mbooloo mu mel nii ak fii ñu ko tëral ak fii ñu ko tëral Mawlana Cheikh Ibrahim tëdd nii. Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu tëdd nii. ñu ko yóbbu ci place boo xam ne moom moo ko sos. ñu yóbbu ko ci ñu di ko yóbbu ci place boo xam ne moo ko sos. diggante boobu benn perte mënu fi am. diggante boobu benn perte mënu fi am. benn yàqule itam mënu fi am. benn yàqule hun mënu fi am. moo tax moom. moo tax moom duñu wax rafet nañ njortu duñu wax ne rafet nañ njort waaye dañuy dogu ci moom waaye dañuy dogu ci moom alhamdulilah yal na yàlla defal ko lool